juróom ñaar fukk ak ñeent leeru àddina si asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir tegtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gisoon na ni nu ni sëriñ si ak xutbakat yi ak pharisien ya doon ñaawale yéesu di ko wuta jàpp ngir rey ko waaye kenn mënu ko woon a jàpp ndaxte waxtu wi mu war a dee jotagul woon tey nag dañu bëgg a jëm kanam ci linjiil ngir dégg ni yéesu yeyewoon ñi ko doon weddi ak ni mu fajewoon woon genn gumbak judduwaale loolu moo waral sunu njàngum tey di tuddu leeru àddina si nu ngi jàng ci linjiilu yowaana saar juróom ñett mbind mi nee na ca ëllëg sa ca fajar yéesu dellu na ca kër yàlla ga mbooloo ma fa teewoon wër ko mu toog tàmbali di leen jàngal yeesu ne leen man maay leeru àddina si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund farisiyen ya ne ko yow yaay seddal sa bopp kon li ngay wax du dëgg yésu tontu leen maa ngi seddal sama bopp teewul li may wax di dëgg ndaxte xam naa fa ma bàyyikoo xam fa ma jëm waaye yéen xamuleen fa ma bàyyikoo ak fa ma jëm yéen fii ngeen bawoo ci suuf waaye man ca kaw laa jóge àddina ngeen soqi ko waaye man bokkuma ci ñu ne ko yaay kan mu ne leen li ma leen waxoon ca njaalbeen ga bu ngeen yëkkatee doomu nit ki dingeen xam ne may ki nekk dingeen xam it ne duma def dara man ci sama bopp li ma baay bi jàngal rekk lay wax te it dingeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel ñu tontu ko ne nun ci ibrahima lanu soqi ko te mus noo nekk jaamu kenn nan nga nu mën a waxe ne dinañu leen goreel yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp kuy bàkkaar jaamu bàkkaar la te jaam du bokk ci kër gi ba faaw waaye doom moom ci kër gi la bokk ba faw kon nag bu leen doom ji defee gor dingeen nekk ay gor tigi xam naa ne askanu Ibrahima ngeen waaye yéen a ngi may wuta rey ndaxte li may jàngale xajul ci yéen li ma sama baay woon laay wax waaye yéen li leen seen baay di wax ngeen di def ñu tontu ko ne Ibrahima mooy sunu baay Yeesu ne bu ngeen dee waa kër Ibrahima di ngeen jëfe ni moom léegi nag yéen a ngi may wuta rey man mi leen jottali dëgg gi ma jële ca yàlla Ibrahima deful lu ni mel li ngeen doon ne ci seen baay rekk ngeen di def ñu tontak ne ñun de dunu doomi xaram benn baay rekk lanu am moo yàlla yeesu ne bu yàlla doon seen baay dingeen ma bëgg ndaxte ca moom laa jóge ñëw ci ndigalam ñëwaluma sama bopp waaye moo ma yónni lu tax dégguleen li ma wax li ko waral moo di mënuleen koo déglu seytaane mooy seen baay te bëgg-bëggam ngeen di bëgg di def boomkat la mësa doon du taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoona ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi waaye man damay wax dëgg moo tax gëmu leen ma kan ci yéen moo mën a seede ne bàkkaar na su ma waxee dëgg nag lu tax du ngeen ma gëm ku nekk doomu yàlla dina déglu ay waxam waaye nekkuleen doomi yàlla looloo tax du ngeen déglu yawut ya ne ko ndax danoo waxul dëgg bu nu nee nitu samari nga te danga am ay rab yeesu ne leen aw rab waaye sama baay laay teral te yéen dangeen may toroxal wutuma màggal sama bopp keneen a ma koy wutal te mooy àtte ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kuy sàmm sama wax doo dee mukk yawut ya ne ko léegi wóor nanu ne danga am ay rab ibrahima faatu na yonent yépp faatu yow nga naan kuy sàmm samay wax doo doo ñam dee sunu baay ibrahima faatu na mbaadu danga foog ne yaa ko gën a màgg yonent itam faatu nañu waaw loo teg sa bopp ne leen su ma dee màggal sama bopp du am maana sama baaye may màggal moom mi ngeen naan mooy seen yàlla xamuleen ko nag man maa ko xam su ma ne woon xamuma ko ab fenkat lay doon ni yéen waaye xam naa ko te maa ngi sàmm waxam seen baay Ibrahima bég na bi mu yëgee sama ngan bi mu ko gisee it bég na ci lool yawut ya ne ko amaguloo juróom fukki at ba noppi nga naan gis nga Ibrahima yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax may ki nekk noonu ñu for ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko waaye yeesu nëbbu genn kër yàlla ga gannaaw loolu nag amoon na fu yeesu jaaroon gis fa waaju judduwaale gumba taalibeem ya laaj ko ne kilifa lu tax waa ji judduwaale gumba ndax baakaarama ko waral wala bu waajuram yeesu tontu ne ajuwul ci bàkkaaram wala bu waajuram waaye loolu dafa am ngir jëfi yàlla yi feeñ ci moom ba bëccëg lanu war a matal jëfi ki ma yónni guddi dina ñëwi goo xam ne kenn du ci mën a liggéey ci ba may nekk ci àddina may leeru àddina si bi yeesu waxee loolu ba noppi dafa daldi tëfli jaxase lor wa ak ban tey ko ci bët gumba ne ko demal sëlmu ji ca bëti silowe gumba daldi dem sëlmu ji dellu di gis dëkkandoom yi ak ñi ko xàmme woon bu jëkk ci yalwaan naan xanaa du kii moo daan toog di yalwaan ñi naan moom la de ñi naan du moom dañoo niroo rekk mu daldi leen ne man la de ñu ne ko lu ubbi say bët mu tontu ne ku ñuy wax yéesu moo tooyal ban tey ko ci samay bët ne ma demal sëlmu ji ca bëtu silowe ma dem nag sëlmu ji daldi gis ñu ne ko ana waa ji mu ne leen xamuma fu mu nekk noonu ñu daldi indil farisiyen ya nit ki gumba woon ndekete yéesu bés bi mu tooyalee ban ubbi bëti gumba ga bésu nooflaay la woon looloo tax pharisien ya di laajante waa ji fu mu jaar bay gis léegi mu ne leen dafa tay ban ci samay bët ma sëlmu ji ba fi ma nekk maa ngi gis ci noonu am ay pharisien yu naan ki def li mënula jóge ci yàlla ndaxte topp ndigalu bésu nooflaay bi ñeneen it di wax ne nan la boroom bàkkaar mën a wone yi firnde noonu ñu daldi féewaloo ci seen biir farisiyen ya laajaat ku gumba woon ka ne ko yow loo wax ci moom yow de la ubbil say bët mu ne leen yonent la yawut ya mënuñu woon a nangu ne nit ka dafa gumba woon tey gis léegi ñu daldi woolu ci ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom ji ngeen ne gumba judduwaale la kon fu mu jaar bay gis léegi waajur ya tontu ne xam nanu ne daal sunu doom la te dafa gumba judduwaale waaye ni mu def léegi bay gis xamunu ko te xamunu it ki ko ubbil ay bëtam laaj leen ko magum jëmm la te mën na tontul boppam ragal yawut ya nag moo taxoon a nit ka waxe noonu ndaxte yawut ya dañoo mànkoo woon ne képp ku seede na yéesu mooy almasi bi ñu dàq la ca jàngu ba looloo tax jur ya ne laaj leen ko magum jëmm la farisiyen ya dellu woowaat ka gumba woon ne ko waxal ci sa digganteeg yàlla xam nanu ne waa jooje boroom bàkkaar la mu tontu ne xamuma ndax boroom bàkkaar la am déet li ma xam daal mooy gumba woon te léegi maa ngi gis ñu laaj ko ne lu la def numu mu la ubbile say bët mu ne leen wax naa leen ko ba noppi waaye gëmu leen ma lu ngeen bëgg ci ma di ko wax ak di waxaat xanaa dangeen a bëgg nekk ay taalibeem yéen itam ci kaw loolu ñu daldi ko saaga ne ko yow yaay taalibeem nun taalibey muusa lanu xam nanu ne yàlla wax na ak muusa waaye kii xamunu sax fu mu jóge waaja ne leen loolu de doy na waar leen fu mu jóge te moo ubbi samay bët xam nanu ne yàlla du déglu boroomi bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal tey def coobareem bi àddina sosoo ba tey mus dégg nit ku ubbi ay bëti gumbag judduwaale kon nit kookee nag bu jógewul woon ca yàlla du mën a def dara ñu tontu ko ne yow ci biir bàkkaar nga juddoo ba noppi dinu jàngal noonu ñu dàq ko ca jàngu ba yeesu daldi yëg ne dàq nañu nit ka bi mu dajeek moom mu ne ko ndax gëm nga doomu nit ki waaja ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm yeesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy kiy wax ak yow waaja ne borom bi gëm naa la noonu mu jaamu yeesu yeesu ne ko àttee ma a ñëw àddina ngir ñi gumba gis ñiy gis gumba bi farisiyen ya nekkoon ak moom déggee loolu ñu ne ko xanaa kon nun it danoo gumba yeesu tontu leen bu ngeen gumba woon du ngeen am bàkkaar waaye fekk yéen a ngi naan nu ngi gis ci bàkkaar ngeen di dëkk noonu la borom bi yéesu faja woon gumbak juddewaale gi te yedd farisiyen yi ndax seen gumbak xel ci lu wér boroom diine ya doon sonal ka gumba woon seen gumbaay yeesoon silmaxa ndaxte ñoom mën nañu gis waaye bëgguñu gis looloo taxoon ñu for ay xeer ngir sànni leen yeesu seen bëti xel lañu gëmm ngir baña a nangu ne yeesu mooy almasi bi di kàddu gi nekkoon ak yàlla ca njalben ga naka noonu gis nañu tey ñaari fànnay gumba ñi gumba ci bët ak ñi gumba ci xel lëndëmu ngumbak xel moo yées lëndëmu silmaxa ndaxte ku say bët gumba doo mën a gis mbiri àddina wante ku sa xol ak sa xel gumba doo mën a gis mbaa xam mbiri alaxira kàddug yàlla dafa nuy won ne doom aadama yi dañu mel na ay gumba judduwaale ci seeni xel ak ci seeni xol ci lëndëmu baakaar lanu juddoo te ci kaw sunu pexey bopp amunu jenn yaakaar mbaa benn xam-xamu yàlla nu ngi toog ci biir lëndëm gi te sax danu bañ leer gi ni mbóot ragalek leer wante yàlla bëggul kenn ci nun toog ci lëndëm gi loolu moo tax mu feeñalal nu ab musalkat bu am doole di borom bi yeesu kirist loolu la mbind mi wax bi mu naan yàlla sunu boroom fees na ak yërmande ba tax muy wàcce ci nun jant buy fenk ngir leeral ñi toog ci lëndëm takkandeeru dee leen ngir jiitenu ci yoonu jàmm ñëwuk yeesu ci àddina dafa mel ni jant buy fenk ni nu ko gise woon yonent yi ay làmp lañu woon yuy leer ci àddina su lëndëm si waaye yéesu kirist mooy jant bi indi leer ci nit ñépp yonent yi dañu mel ni biddéew yi ak weer wi leeral guddi waaye yeesu mooy jant bi leeral doomu aadama ngir musal leen ci lëndamu bàkkaar ñaata jant am ci àddina benn jant rekk moo am ñaata musalkat la yàlla wàccel bàkkaarkat yi benn rekk waaye lu ëpp ci doom aadama yi ràññewuñu loolu ba tax ñuy wëndeelu ci lëndamu bàkkaar ba tey moom la mbind mi wax bi mu naan yeesu kirist mooy leeru àddina si leer gi feeñ na ci biir lëndëm gi te lëndëm gi jàpp ko ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko yow miy déglu tey ndax yaa ngi dox ci leer gi wala dangay wëndeelu ci lëndëm ba tey mbokk yi jërëjëf ci déglu bi ci njàng mi ñëw bu neexee yàlla dinañu jëm kanam ci linjil ba gis ni ndamu yàlla feeñe woon ci yeesu nib jant su fekkee ne am na lu ngeen bëgg a laaj ci li nu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li almasi bi Yeesu wax bi mu naan man maay leeru àddina si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund